naa ba ñu jëlee dogal ne dañoo fas yéene ànd ak seen sëriñ xalif général de Mourides sëñ Muntaxa Bachir Mbàkke ci liggéeyub université bii mu taxawal ñoom opérateur économique yi nekkee ci biir réew mi nekkit taalibe sëñ Bamba fàggu woon nañ ci ay daara ak i dëkkuwaay ñu mën koo xayma ci juróom-benn milliard ak ñeenti téeméeri million tey jii am na ñaari bâtiment yoo xam ne tabax nañu ko ba mu yemb ñu fas yéene jébbal caabi yi sëñ Muntaxa Mbàkke Bachir Mbay Sarr mooy président liggéey bi bi ñu ko commencé léegi defe naa ne dem na at ak nangam wala ñaareel waaye yàlla dimbali nañu ba gis nga bâtiment yi bari na ci yu pare am na yu noppi yu sotti yooyu nag lan na ci taxawaay bi pour dem jël caabi ji teg ko ci loxol sëriñ bi. sëriñ Cheikh Badawi Mbacke mi xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bachir Mbacke dénk université bi rafetlu na ko bu baax ci turam. lépp lu fi nekk fii ñoom ñoo ko def ñaari at yi ku ne xam ne mbas mi waaye liggéey bi moom yëgul. yëgul yëgul d'accord yëgul crise dafa mel ne sax dafa leen gën a soññi seen i yëgu gën ñoom opérateurs yi. xalif général de mourides sëñ Muntaxa Mbàkke Bachir dalal na leen ci résidence am bi nekk ci Daaru Marnaan foofa sax lañu ko jébbalee caabi yi. teg ci jaajëfal ko bu baax ni mu fexee ba seen kuréel gii booloo doon benn ba bépp liggéey bu xalifa bi sumb ak communauté bi ñu taxaw ci ak yi gu mat sëkk ba lépp yemb boole gi nga boole nu àndandoo mel na ñoo bokk ndey ak baay loolu rek dafa daf koo jaar. Serigne Mountakha Mbacké rafetlu bu baax liggéeyu opérateur yi. bi cant gi jëf ji na ko. cant gi moom xaw xaw foo ko dama ci kanam Serigne Touba mi loolu loolu ci seen ndaje mi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi ñoom opérateur yi ñaax nañ seen naataango yi ñu gën a taxaw si liggéey bi su ko defee bâtiment yi nga xam ne ay finition dong moo ci des ñu mën koo jébbale ci diir bu gàtt.